ki nga xam ne moom mooy tonton Jimi Mbaye donc ñu ngi lay nuyu bu baax. ñu ngi leen di ziar. waa Beuz. waa Beuz ak waa Sénégal ak waa Sénégal. voilà ñu bëggoon rek euh, xam tey euh, yan dénkaane ngeen ngeen di dénk ki nga xam ne moom mooy Aïda Samb ndax xam nañ li waroon seen tànk ba pare donc yan dénkaane ngeen koy dénk. waaw Aïda li ñuy dénk euh, jigéen bu ñu mayee pour mu sëy rek mooy mu dem fonk jëkkëram bu dee ku mu fa fekk muy soxnay borom këram. mu jël ko def ko magam jàpp yaayi borom këram def ko comme yaayam jàpp bàyyi borom këram def ko comme bàyyam après tarbi yu borom këram daal te xam ni kooku moo ko fi dese fii nii te te nit nag wax dëgg yàlla bu bu bàyyee bu rombee jigéen ñu bëri dikk daan yow laa tànn kooku deseeltu la dara donc naa da nga ko war a jàmm tarbi ko lan ngay wax léegi ci xale jigéen ñi nga xam ne ne euh, dañuy dugg si sëy ndax alal wala dugg si sëy Euh, ndax taar dugg si une semaine après ñu génnaa si xale wala ak divorce yu bari yi ñuy gis léegi tey soo doon wax xale jigéen ñi lan lan nga leen di. ma leen wax mooy ku ut alal xale yi euh, xale yu góor yi dañ lay xoymat alal te fekk amuñu ko boo ci duggee pare nag ba dem ba ci biir xam ne amoon nga daal ciy génnaat du sag du ndam sëy ngir yàlla maam salaam. sëy ngir yàlla loolu la tonton Jimi di dénk xale jigéen